fal nañu leen ci ànd bi ak Buzz 221 ni ñu koy defee saa su ne rek di leen indil ay xibaar la ca gën a fës nag dañu daal di dem directement ca pencum ndawi réew ma ni ki tey jii nag gis nañu fa ki nga xam ne moom moo di premier ministre bu Sénégal waaye itam nekk tête de nationale bu Pastef tey jii nag la ñuy installé li nga xam ne nag moom moo di pencum ndawi réew ma waraloon nag mu daal di fay teew ñu bari doon yaakaar ne ki nga xam ne moom moo Sonko dana nekk président assemblée nationale loole di daal dinay weddi ndax ki nga xam ne nag moom moo di njiital Pastef Ousmane Sonko la ko fa taxoon a teew du leen lu dul jébbal li nga xam ne nag moom moo di lettre de démission kon nag mën nañoo jàpp ne Ousmane Sonko du nekk président assemblée nationale waaye président assemblée nationale day daal di jugee ci parti boobee nga xam ne nag moom moo di Pastef kon nag ba ñu ko laajee moom nag la mu moo xam ne moo di ca primature ndax nga xam ne nak mom modi njitu njiitu mi basiru jomaay jaaxaar fay daf ko daldi di soxla ci li nga xamne nak mom modi wetam kon nak njiitu njital Pastef Ousmane Sonko ñepp doon japp ne dina doon li nga xamne nak mom modi tedd di di doon li nga xamne mom modi president assemblée nationale mujjul antu comme niko ki nga xamne nak mom modi euh, njital Africa Jom Sant doon ko sàkko ci Ousmane Sonko pour mu démissionner ci euh, li nga xamne nak mom modi primature dem nek président assemblée nationale lolé antuwul benn yoon kon nag mën nañoo xaar ci kanam tuuti euh, président assemblée nationale dana daal di jukkeeku ci biir parti boobee nga xam ne nag moom moo di Pastef